bi jóg ne que mairie Dakar amul sañ-sañu wax li tax amul sañ-sañu wax ci li état bi wax moom moo di que yoon yi nga xam ne moom la mairie dakaar war a jaar ba war a mën a ñëw taxaw jël àqam ak yelleefam mairie dakaar jaarul foofu loolu tey jii moom la juge loolu la ci loolu la ñuy wax suñu paree juge bi dina saytu ba xam ndax mairie dakaar tey mën na jël sañ-sañam. wala mairie Dakar am na fu mu juum foo xam ne que sañ-sañam ak àqam ak yelleefam mënuñu ko koo jox ci biir procès bi su loolu weesoo nag la ñuy jublu ci wax est-ce que maanaam état du Sénégal am na sañ-sañu wax tey jii ci place su mairie Dakar wax jooju tàmbaleegul suñu paree ci waxu mairie Dakar ci lañuy jublu ci waxu état du Sénégal kon boog yooyu yëpp dafa di loo xam ne dañ ko war a lijjanti ba pare. ndax tey dara warul mu ne expliquer que état du Sénégal war a dugg suñu wax def lu ko neex te fekk amul droit wax ci te loolu léegi mu ngi door mu ngi commencé di doon loo xam ne que kenn xamul lu muy nuru damay fàttaliku procès Karim état amuloon dara lu mu fay def pour temps dugg ne ci par force ba ñu jox ko alal ju dul jeex ba tey ji état beeg avocat ñu ngi am problème ci alal jooju alors que état bi amuloon lu mu fay def nit ñi imposé woon état bi. maanaam ci dossier ñoom Karim Wade ak ñoom seen loolu la ñu bëgg a imposer waat maanaam ci procès bi nga xam ne que moom mooy procès ñoom Khalifa Sall ñun défendre ñu mairie dakaar mais tey jii ñun dinañu wane ne que bi dara warul tax mu jël parole ci procès bi kon procès bi tàmbaleegul fa muy tàmbali moom moo di fa juge bi di wax ku ci ne lan mooy sa àq ak sa yelleef ci biir procès bi ba ak kan moo war a wax kan moo warul a wax ci procès bi loolu leeralal guñ ko. te ci leeral ko lañ nekk fi ñu toll nii